na fa yóbbu na fa lii amee na fa taxawaay bi mais des fois on dirait que ni dafay perdre li nga xamante ni moom moo di repère politique am loolu mu am doole la boo xamante ni tey jii képp ku fi politique war nga mën a soxla Bougane Gueye Dany à tes côtés ngir mu daal di lay mottali ci wet googu. raison raison pour laquelle ñu bari tey jii ci élection présidence yi ñoo ko doon soxla mais ci anam bi nga xamante ni sox euh, taxawee na ko muy le mois mois mois gis nga GGG ku ko saxoo sénégalais dofuñu dañuy xam ne sa bopp la ñor. Mm-hmm. li ñu soxla mooy nous nous allons. on va loolu la ñuy soxla conjuguer conjuguer de verbes ah waaw bàyyi man man man man man man man buggaan li ma bëgg je veux je veux je veux xam ne kii tey bu toogee boppam moom moo ko ñor mm-hmm. te man moom amul ci benn lu mu baax même boo nekkee sa propre kër bi nga nekk ah booy toog di fëgg sa dënn chaque jour da gis ni seen waakar kër lañ lay boycotté. Mm-hmm. Mm-hmm. waxatuma la nag peuple boo xamante ni dafa soxla euh, euh, dund ci beneen bés bu bees jant bu leen di leeral ak yeneen yoo xamante ni da leen di avancé loo Bougane li tax mu tuddee de repère politique du leen bëgg a demal boppam bëgg que ni moom par la force moom dafa war a doon président. te gis nga langum politique moo toll foo xamante ni bu fekkante ni yow li ngay wax sa avéré que ni yow peuple bi moom moo la ñor képp koo gis muy avancé loo réew. da nga war a dem tendre ko la main mm-hmm. am na ñu ko fi def parce que gis naa fi opposition boo xamante ni tey jii comme keroog ba ñu amalee seen coalition beeg intercoalition bi gis naa fi des têtes pleines yoo xamante ni tey jii ñoom war nañoo mën a am lu bari mais lan moo leen teree lan moo leen di teree tey am li nga xamante ni moom la am mooy que ni dañoo jël benn adversaire def ko ni moom moo leen mën a yóbbu fu fu sori bu ñu discours au lieu ñu bàyyi xel askan bi mais plutôt adversaire bi la ñuy daal di ñëw tege ko de côté. et ça devient dangereux nag léegi ku ñu koo convoqué nga daal di koy politiser ku ñu koo convoqué nga daan ni Ousmane Sonko la def naa sotti wax naa bu ma ñemee na ñëw ci man. Mhm. video jéegi Diop kii circule je ne sais pas boobu bu fekkante ni euh, bu bu bees la wala bu yàgg la mu naan maa ngi nii demuma buggaan ngay dani ki sa ki euh, sa manifeste moom tamit à travers vidéo bi nga xamante ni amal na ko démb di di di di indexé et malheureusement. malheureusement pour lui li mu bëggoon amu ko mooy que ni euh, nekk naa victime politique nekk naa euh, prisonnier politique ci ci bu bees bi ñoo ngi may convoqué ñoo ngi yóbboo ko indi alors que ça n'a rien à voir ak li nga xamante moom moo di régime bi donc je pense que ni c'est très bien mu daal euh, def politique parce que opposant dafa war a wax mm-hmm. loolu tamit nañ ko ko nangul opposant wax rek nga mën parce que nekkoo ci pouvoir mais aussi buy wax na xool lu muy wax pour ne pas perdre li nga xamante moom moo di euh, crédibilité politique am d'accord mm-hmm. ah, ah, Ami mu mel ni jamono ji mm-hmm. ñu toll ni euh, voilà ko Amina Ndiaye waxee woon sànq que ni peut-être ci rôlam la nekk même bu ñi ñenn ci askan bi jàpp nañ ci ñu muy amalee politique voilà xaw na des ba moo ko tare avancé lool lool lool mais ndax jàppoo ne jamono ju ñu toll nii tamit euh, euh, du mën a sax régime bi waaye ñi ànd ak euh, régime bi fi nekk waruñu daanu pié waruñu daanu ci piège opposition bi lee maanaam waruñu ànd ak ñoom ci ñu leen may ñuy victimiser wu. xam nga jaara am na ci ñoo xam ne tey jii même bu ñu leen convoqué wut noonu am nañ fitu dem. buntu commissariat central. taxaw fa na leen jàpp leen ma dimbali leen ma ngir yàlla ngeen jàpp ñoom nañ leen jàpp rek na leen yooyu rey commissariat mais nañ leen jàpp rek xam nga pour man victime kenn du créé wu pour nekk victime victime da koy nekk mais boo bëggee kut ko kut nekk victime laa problème dafay am xam nga wax na am na lu ma wax léegi ma ne la sénégalais lenn la bañ mooy kuy teg nit injustice. mais tamit bëggoo mënoo forcer sa bopp ne à la kulli xaal wala par force fu ngeen jaay leen gouvernement bi di ngeen ma teg injustice pour que sénégalais yërëm ma. Mm-hmm. politique warul gis nga politique politicienne bi jeex na de il faut que yenn politiciens yi comprendre ko parce que bi nga xamante ne moo nekkoon ci politique. wala mythe bi nga xamante ne sénégalais amoon nañ ko ci diggante ak politiciens yi. Mm-hmm. mythe boobu dafa dem ba dafa dagg carrément amatul complexe. amatul ci diggante askan bi ak ñi nga xamante ne ñoo di politiciens yi bu njëkk ba ñoom ñoo doon daw ñoom ñoo doon daw seen ginnaaw mais c'est tout à fait le contraire léegi léegi ñoom ñooy daw suñu ginnaaw parce que léegi da lay leer ne askan bi non seulement muus nañ éveillé wu nañ mais léegi da ngay gis ne dañuy imprégné wu bu baax a baax ci ni nga xamante ne la réew mi du doxee yow temps wu Macky Sall wala temps wu peut-être euh, Abdoulaye Wade conseil des ministres da nga di mm-hmm. mais léegi gis nga bu mercredi jotee. même plateau yi nga xamante ne dafay am ci heure euh, li nga xamante ne moo di conseil des ministres bi wala plateau yi am après conseil des ministres bi da gis ne dafay élevé bu baax a baax parce que nit ñi léegi. dañuy imprégné wu carrément benn faux pas boo xamante ne sax gouvernement bi wala ñi nga xamante ne ñoo fekk ci opposition bi bu ko defee rek ñoom dañ ciy rendre compte wala dañuy taxaw carrément ne lii ak lii nga def d' accord wuñ ci li nga tey ji Ousmane Sonko ak ñi nga xamante ne ñoo di jeunesse bi am na benn link bu doy waar wala bu extraordinaire boo xamante ne am na ci mais dama ne la tey ji bu fekkente ne Ousmane Sonko xëy na def loo xamante ne defuwul ñoom ñi nga xamante ne ñoo ko faloon ñoom ñooy njëkk taxaw ne ko sëñ bi li nga def nii teguwul ci yoon wala li nga def ni jaaduwul dàkkuwul ak yow parce que complexe bi ñu amoon ci diggante ñun ak suñu politiciens yi loolu moo dakk il faut que ñoom ñu comprendre que ni jamono ji askan yu muus lañ il faut que ñu comprendre que ne jamono jii politique politicienne bi nga xam te ne ñoom la ñu tàmmoon di def mm-hmm. nañu jéem changé changer parce que léegi nit ñi doxeetuñu noonu ku ñëw politique ku mu neex politique ah kenn kenn amul monopole lu ne man forcément war a politique wala man dong maa war a def politique non non te réew moo xamante ne démocratie dafa dox opposition dafa baax te ay opposants dañ fa war a am mais encore une fois de plus jaara soxluñ ay opposants yoo xamante ne mënuluñ amul amaluñ benn njëriñ askan wi dañuy soxla opposant bu ñu soxla mais opposant bi nga xamante ne dafay ñëw di dimbale li nga xamante ne moo di nguur bi pour seen liggéey jëm kanam parce que bu fekkente ne da ne réew mi moo la ñor jaara waroo xaar rek am poste pour dox pour liggéeyal réew mi ak fànn goo mënti nekk même bu fekkente ne amoo benn poste yow ci fànn bi nga nekk war nga faa mën a euh, dimbale li nga xamante ne moo di askanu Sénégal ndax ku yaakaar ne jaara tey jii nga xëy ne nguur gi gi nekk ci ay gi nekk ci jafe-jafe bu fekkente da nga yaakaar ne Bassirou Diomaye Diakhar Faye dong moo ko santé tôt ou tard di nga ñibbisi wala même bu fekkante ne sax benn membre de famille boo xam te ne am nga ko sa kër tey jii mi ngi Sénégal di fi dund te bu jafe-jafe ñëwee moom tamit da koy dund jaara xalaat bi ñu am gis-gis bi ñu am ci li ñuy xew jamono juñ toll nii ñenn ñi jàpp ni ah, fayantoo la ndax yow ah, gis-gis boobu nga ci am. fayantoo mënul nekk. xam nga lu tax fayantoo mënul nekk. Euh, parce que euh, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye waxuma la ko ko jege de mais ku ko gis de loin rek dinga xam ne kii nii euh, am na beneen objectif lu dul toog naan day fayantoo d'autant plus que wax nañ ko du benn yoon du ñaari yoon ci seen ay discours. Mm-hmm. ba ñu ubbilee taskatu xibaar yi porte yi ci ca pale ba li mu njëkk a wax loolu ci la bokk nee na moom du ko def te bu gisoon sonk di ko def tamit du ko ci daal di bàyyi d'autant plus que moom Ousmane Sonko parewut pour def fayonte. Mm-hmm. parce que liñ naan niveau bi digganteem la woon ak Macky Sall mi fi nekkoon mais niveau bi nekkul digganteem ak opposition bu bees bi je pense que ni niveau nekkul ci diggante Ousmane Sonko ak opposition bu bees bi nga xamante ni ñoom ñoo fi taxaw xam nga kañ la ñuy nekk à son niveau bu ñu demee ba gis day faay ci gouvernement bu bees bi ñu dem ba gis que ni ah Sonko mii nga xamante ni moom la ñu jox confiance mu tabbal ñu Bassirou Diomaye Diakhar fay mu nekk président lañ ko doon xaar ci lu bari def nañ fi deux ans def nañ fi trois ans dara takkewu ci nguur gi dafa gën a suuxee xaalis dafa gën a manqué dund gi dafa gën a cher courant gën a cher location bi kenn waxatu ko boobaa ñoom dinañu mën a def seen entrée en jeu dinañu am seen seen seen ay munitions yu bari pour tirer directement vers leur adversaire bu boobaa ça sera de taille. kon li ñuy weex xeex dafa tolloo doole boobaat doole dina tolloo ci diggante opposition bi ak ñoom Ousmane ak ñi nga ak Ousmane Sonko ak Diomaye mais pour le moment nekkagul niveau parce que boo gisee rek déjà sortie bi nga xamante ne Ousmane Sonko amal na ko la fois passée chiffre yi nga xamante ni génn na ko ñu mu indexé daal di leen di accuser kan moo taxaw weddi ni lii nii amul dëgg. kan moo taxaw weddi li nga xamante ni moo di chiffre yooyu. Mm-hmm. et pourtant tey jii loolu nekkoon na débat boo xamante ni mënoon na leen a may niveau bu rëy rëy rëy tey ñu dem gëstu ji xool ni tey jii kat Ousmane sonk li mu wax am na lu ci takkee wala am na lu ci takkee wul ñu daal di génn ni ah d'après nos études. li nga xamante ni moo ñul wéer mooy que ni milliards yi nga xamante ni Ousmane Sonko tudd na ko fii milliards yooyu yéen nekkul yu avéré bu boobaa ñëpp dinañ leen déglu parce que foofu lañ leen di xaaree ci ay yoo xamante ni dafay cohérent opposition yoo xamante ni tey jii dafa am dina am sens de l'écoute par rapport ak ñi nga xamante ni ñoo leen di déglu mais pour le moment bu ñu ko bëggee jël def ko adversaire c'est peine perdue parce que nee politicien ku la ëpp doole mooy ki nga xamante ni peuple bi dañ koo jox nopp ba pare daal di koy jox bopp. Mhm. Euh, la fois passée wala autrement sax laay wax bu njëkk ba sénégalais seen yoon nekkul woon ci ku falu at ku faluwul seen yoon nekkul woon ci kuy politique at ku politiquewul boo mësaan a dégg tey benn Ablaye Ndiaye buy politique day ñëw ci koñ bi yéen ñëppay teel a sangu takk seen i jil takk seen i ba rien pour daal di koy tëg bët parce que boobu temps politique foofu la tolloon wala tey nga gis benn Ami Cissé bu wow bët dem ci politicien ba jël fa benn un waa koñ bi génn leen 2000 t-shirt 2000 t-shirt koñ ba di riir mel ni dara dafa xew ñëpp taxaw. man maa ñaaw bàjj. yow yaa ñaaw bàjj da nga bëgg xaalis. make up ko rosa ko. <laughs> voilà donc euh, dans le temps foofu la tolloon mais dañoo toll foo xamante ni sénégalais da ngay teg seen loxo lu leer ñu topp la tegoo seen loxo lu leer ak loo ci nekk fonctionnaire milliardaire. opposant milliardaire lu mu mën ci doon dañu lay daal di boycotter de côté. léegi dañoo muus de. et actuellement ami maa ngi leen koy wax fii nii devant la télé ñëpp di ma gis mm. lu fiy jëlee Ousmane Sonko ci xolu sénégalais yi du yomb. il va falloir travailler beaucoup beaucoup beaucoup même et travailler nekkul ni sorte chaque jour wax chaque jour euh, accusation chaque jour parce que fii gis nañ ni lépp lu ñëw ñu politiser ko pour diaboliser. Mm-hmm. et ça ne passera pas comme ni ko ndaw si waxee. pour pour ça ak passera. Ah, comme li jëlee Ousmane Sonko Sénégal ñoom ci seen mm-hmm. bi nga xam ne ñoo fi nekk. Mm-hmm. pour man nit lu mu mën a mën a mën a mën a wax ak nit loo mën a teg teg ci mm-hmm. kanamu sénégalais. te ñoom ci seen bopp ñoom ñi nga xamante ne ñoo jiite jamono ji defuñ lu tax wala waxuñ lu tax. confiance bi nga xamante ne askan wi amoon nañ ko moom mu dëñ. pour man mhm. lépp waaye def Amina c'est peine perdue parce que lan moo mhm. tax mhm. li ñu fi ñu jot a jógee yëpp moo tax trajet bi Sénégal jógee moo métti gis nga li fi xewoon mars 2021 ba tey kenn fàttewu ko gis nga li fi xewoon covid 19 bi Amina ba tey kenn fàttew ko moment bi nga xamante ne Sénégal mën naa moment bi mu gënoon a vulnérable jaara moment bi nga xamante ne tey jii euh, góorgóorlu bi nga xam ne tey lay liggéey dundee ko tey suba mu utaal lu mu am moment boobu moom góorgóorlu boobu dañ koo tëj ràpp biir këram ne ko toogal moment bi nga xamante ne am na ñu ñàkk seen bakkan ci feebar bi ndax ñàkk oxygène moment bi nga xamante ne médecin yi nga xam ne ñoom ñoo demoon di risque seen vie jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñoo doon dund ak feebar boobu am na ci ñoo xam ne ba tey jaara est-ce nga ne am na ci ñoo xam ne ba tey seen honoraire ba tey fayaguñ leen ko mm-hmm. ñu ngi nekk di ko di ko di ko di ko kaas ba léegi fayaguñ leen ko man bu yàggu daal am na ci ñu ci defoon conférence presse même pas un an ñoo xam ne dañoo ne la leen état bi ameloon ba tay fayagu leen ko mm-hmm. léegi moment boobu yëpp alors que am na ñu nekk ci xam ne ñu ngi nekk ci doowu ginnaaw sénégalais di jël ay milliards di ronk di dugal seen poche mm-hmm. pour man ñoom ñi nekkoon ci euh, nguuru Macky Sall pour man cinq ans ci kanam war ñoo ne politique dama dama dañu waroon stand dama gis benn audio wala vidéo président mhm. Macky di wax que ni comme ñoom li ñu doon wax rek. Mhm. Euh, euh, euh, di wax mu ne képp koo xamante ni yoon daf laa teg loxo rek c'est parce que da dangaa def. waaw waaw waaw amaana loolu peut-être ñoom bi ñu koy wax euh, xalaatuñu woon kër yi bés bi dina ñëw donc nag kon nañu jàpp ni ñi nga xamante ni teg nañ leen loxo am ak yoon jafe moo tax ñu teg leen loxo xool ñu la rek c'est que nee xaw moo tax ñu jàpp la kon naa la waxoon képp ku dem ci yoon rek dafa c'est parce que mais jaar mais jaar donc nañ jàpp loolu li fi xewoon ci Macky pour man boobu moo nekkoon kii bi sommet bi mm-hmm. danga naan gis nit kuñ jàpp ndax dafa takk bracelet gis nañ ko fi danga naan gis nit ku fi jàpp ndax santam. da nga naan gis di nit kuñ fi jàpp nga dafa nuru benn xeet ñu jàpp ko. dañ fi daan jàpp nit ne dafa jóge dëkk ak dëkk ñëw pour xeex si lépp am na fi. Mhm. te loolu li nga xam ne ñoom ñu ngi ko doon reproché wala ñoom ñu ngi koy reproché jamono jii ñoom ñoom ñi nga xam te ñoo nekk ci opposition bi te jamono jooju ñoom ñoo nekkoon ci nguur gi mais loolu gisaguñ ko fi. Mhm. mais ki ki nga xamante ne frère la ci euh, Marème fay Sall mais jote woon na fi ak yoon. te laalawul ak dara ak ki nga xamante ne moo di Ousmane Sonko wala Bassirou Diomaye Diakhar Faye nit la joteeloon nit kooku porte ko plainte ñu dem après mu dem ñëw dem ñëw mais jéegi Diop euh, déglu nañ ko démb. dañ hmm. ko déglu pare dañ ko bàyyi mu ñibbi këram. Hmm. veut pas dire que ñoom la seen conscience yi dalul aussi parce que ami euh, conscience bu dal rek ngay tëdd nelaw ba yandoor mhm. parce que tey jii euh, imagine toi buñ ne nit jàpp nañ ko rek lan ngay ñëkk a wax bokkul bi tey dégg mhm. ba ba excuse ba ñu fi jàppee waa ñëwoon du ñi ci jubal jubal jubanti mhm. euh, bañ fi tegee loxo Doro Gueye te ku ne xam ne ni Doro Gueye rapprochement bi nga xamante ne amoon na ko Macky Sall ñu bari lan la ñuy wax ii du gaaw a génn ci kaso bi ndax kiiwu Macky Sall la woon alors que ñi calculer woon sax ku nekk ami kii avec kii ñan ak ñan ñoo nekk ami ñan ñoo lié lu ci bari ñoo ngi dugg kaso di nekk en garde à te ñoom yëguñu sax lan mooy cause problème parce que dañoo bëgg a firndeel ne jamono ci mhm. ñoom li ñu leen tegoon bëgguñu ko teg ñeneen et pour man loolu buñ ko defee rek dañuy trahir li nga xam te ne mooy di askanu Sénégal parce que dafa am ñaar yoo xam ne dañoo dëngoon ak sénégalais yi muy justice mhm. te justice boobu la ñoom ñoo taxaw ne dañoo pare pour defaraat ko ci conférence de presse bi Ousmane Diagne wax loo xamante ne man personnellement dal na sama xel bañ na ko ba bu ko Ousmane Sonko joxee parole moom waxam du bari benn wax lay wax wala ñaari wax yoon dina def liggéeyam cela veut dire que mu ne am na ñu taxaw naan mbir yi dafa yéex euh, euh, reddition des comptes bi dafa war a gaaw mu ne ñun du ñu bëgg lu neex askan wala du ma bëgg lu neex kii que ce soit cela veut dire que dafa bëggoon wax ne du ma bëgg lu neex président de la république wala du ma bëgg lu neex son premier ministre Ousmane Sonko ba tax may jalgati boo xam ne justice moo ko teg. Mm. et loolu dafay firndeel que ni ñoom tey jii. Euh, bu fekkente ne mbir yi am na dañuy seppi mbiru politique tegee ko nële mais indi li nga xamante ne c'est purement justice te loolu la askan wi di xaar ci ñoom et je pense bien que du ñu def erreur bi nga xamante ne euh, ki nga xamante ne moo fi jógee def na ko parce que moom da daan def ne.